mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen baalu àq di baalu àq ñépp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te di di ci teg mboolem jullit yi ak fu ñu mën a nekk di nuyu ñi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ci biir jumaa yi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen seen CMTTV wala ñu ñuy topp ci mboolem site internet yi ñu lëkkalool wala télévision yi ak rajo yi yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di ñëwaat ci waxtaan yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def fii ci jumaay Tuuba ju mag ji ci di indi ay tomb yu am solo yoo xam ne dañ ci fàttalante ak di ci jàngale lu aju ci sunu diine ak lu yéwénal sunu àddina loo xam ne danañu mën a jariñ ci ñaari kër tey jii nag di ñaareelu fan ci koor ci atum 1442 leen ko waxewoon woon démb ci bokk ci bind yi ci ci tomb yi ñu tey jii tamit doonaat thème boo xam ne ci durus yi lay doon maanaam ab bind la ñuy jàngale bind bi ñuy jàngale nag mi ngi aju ci eh, fi sëriñ bi di jàngale ci masaalikul jinaan ci buntu bu ñuy wax fas fi tilaawati wa ma yataxallaqu biha téere masaalikul jinaan buntu bi jàngale alquran ak li ci aju loolu nag suñu ko waxee di ko waxtaane ci koor xam ngeen ne ñëw na ci waxtoom ndax weer wi ñu nekk ci la téeréb yàlla bi sunu subhaanahu wa wàcc kon suñ ci waxtaanee bunt bu ci sëriñ bi di jàngale dana am njariñ te ñëw na ci waxtoom kon su ko defee yaakaar naa ne suñ waxee buntu bu sëriñ bi di jàngalee ci alxuraan ak li ci aju euh, dana indi ye ya ca aju yam làmboo moo xam njariñ laa ngëneel laag teggin yàgg yooyu yëpp dana ci dugg si ki nga xam ne nag moo ñu war a defal waxtaan wi mooy sëriñ Afia Ahmad Ñang kenn ku nekk xam ne ne miin nañ ko ci jataay bi ci jumaa ji ci koor gi miin nañ ko tamit ci ajjuma yi muy lu aju ci bayaan yi nga xam ne bokk na ci kilifa yi koy taxawee ci ajjuma jot waaye miin nañ ko tamit ci jumtuwaayu xarala yi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji ngir ay waxtaanu diine yu am solo yoo xam ne bëri na ci lool waaye miin nañ ko ci biir réew mi ak ci bitim réew ci xam-xamam ak jàngaleem ak yéwén ak tabe goo xam ne tabe na ko lool ci fànn gi yàlla na ko yàlla gën a dolli wér gën ko dolli kàttan kon moom suñ tuddee turam rek danañ mën xam ne waxtaan wi su ñëwee dina am solo su ko defee nag ci biir waxtaan wi képp koo xam ne da am laaj boo bëgg laaj boo xam ne dafay aju ci fataawaay

wala 77 072 94 76 képp ko am laaju diine bu mën a doon boo ci wootee laaj ko incha allah danañ ko xool euh, jox ko sunu muftu yi nga xam ne ñoo fi ñëw di tontu laaj kon su ko defee dañuy jébbal kàddu gi sëriñ Afia Ahmed Niang mu jublu ci waxtaan wi kon sëriñ bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man ittabacahum bi ixsanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd bi di shahru ramadan al di ñaan sunu boroom may nu ci tawfiq ak ndimbal ñu joxe ko niñ ko santaane dañ nangul nu ko teñ fulal nu ko di ñaanal kilifa gu mag gi Cheikh Mouhamadou Mountakha borom yàggal ko ci sunu kanam te ko nu ànd ak moom liggéey mboolem na yéene yi mu am yépp mu sottal mboolem yoon yéene yi mu am yépp ci liggéey islaam ak liggéeyal jullit yi di baal wax ñëpp leen ko baal di ñaan li yor yu ëmb ci ay ngëneel ki barke ak yiw sunu boroom baaxee nu ci lu kawe si njort ñu dugg ci koor gi ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin am ci ak wér ak tal ak kàttan ak xéewal te teeweeti ko ay yoon yoon yoon yu bari te ànd ak na mu gën a rafete ginnaaw loolu ko sëriñ Abdul Ahad waxee jataayu tey bi bind lay doon bu ñuy bokk di nafar ci benn bunt bu bokk nag ci Masaalikul Jinaan benn fas boo xam ne ngi jëm ci alquran ak la ca aju Masaalikul Jinaan téere la bu Cheikhul Xadim radiyallahu taalif ci tasawuf nga xam ne tënk na ci li ëpp solo ci li ñuy wooyee a tasawuf as sunni muy tasawuf bi nga xam ne ci alquran sunna la sukkandiku mag ñu njëkk ñu baax ña tàmbalee ko ca yonente bi ak i ba romb ci imaam Junayd ba ci borom tarixa yu siiw yi ba ci moom ñëpp seeni njàngale ak seeni yar dañ ko tënk ci tasawuf boobu tasawuf boobu nag la tënk ci téere bii tudd Masaalikul Jinaan gën koo sukkandikoo ci xaatimatu tasawuf bu imaam Muhammad eh, Cheikh Muhammad Yadaali ad-Daymaani radiyallahu anhuma Masaalikul Jinaan boobu nag eh, ni mu ko baaxoo defee ci njaal benn wax na ca lu jiit lu jëm ci wàllu xam-xam soññee ci fonk xam-xam soññee ci farlu ci jaamu yàlla door indi nag dëgg-dëgg li ko tax a jóg muy tasawuf ak la ca aju ci biir farlu ci jaamu yàlla ak nag ci law indee bunt bu jëm ci jàng alxuraan ak di ko jàngale ak bind ko ak lépp lu aju ci alxuraan rek la ci ëpp ci la ko leeral bunt boobu nag bind boobu nag ci lañ bëgg nafa tey bala ñu ak ci dëgg-dëggi bind bi ñu wax ne alxuraanul karim mooy wax yàlla ji seydina jibril wàcce ci ndigalul yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax yàlla ju ñu wax ci al ci làmmiñu arab bu leer naññi woo xam ne baat yi ak ara ak xaraf yi ak maanaa lépp ci yàlla la bàyyi koo wàcc ci yonent bi jaar seydina jibril mu jot li ko nam nañ ko ko joxe dara soppikuwu ca dara yokkuwu ca dara wàññiwu ko wàññikuwu ca te noonee mu wàcce noonu la ko yàlla wattoo ba nëgëni si na ko yàlla waxe woon mu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi jotalee ko noonee noonee la ko jullit ñi jote yor ko ba nëgëni dara soppikuwu ca dara yokkuwu ca dara wàññiwu ko ca wenn xaraf wu nit yokkoon ci alquran jullit yépp a jóg taxaw Euh, weddi ko lu ci waay wàññi ñëpp ko lu ci yokk ñëpp jóg taxaw kon téere bu yàlla watul boppam la inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu xaafizun bari na ay tur alquran danañ ko tuddee alfurqaan danañ ko tuddee alkitaab danañ ko tuddee azikrul xakim danañ ko tuddee annuurul mubin danañ ko tuddee asiraat almustaqim moo tax alquran ci bi muy xamle alquran ci boppam nee na wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruuxul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisaanin arabiyyin mubin kon loolu mooy alquran wax ju wàcc wax ju jóge ci yàlla mi borom bi léefi wàcc Seydina Jibril wàcce ko sol ko ci xolub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir Seydina Muhammad moom sallallahu alayhi wa bokk ci ñi waar nit ñi di leen teg ci yoon ci ndigalu yàlla bi yonent bi yàlla bi gën ci yonent yi yàlla yoon yépp te mujj cee ñëw te jeexal ak yonent bi al wax ji nag nekk wax joo xam ne wax ci làmmiñu arab bu kon loolu moom yonent bi sallallahu alayhi wa na alquranu huwa nuurul mubin wa zikrul hakim wal siraatul mustaqim ne alquran mooy leeru yàlla bu fés gi nga xam ne mooy leeral yoonu yàlla di waar bu xereñ gi di yoon wu jubbi kon tur yooyu yëpp ay turi alquran la yoo xam ne tur wu ci nekk day tegtale euh, ay ay ay meloom alquran di wax di ñuy jàng ci aw làmmiñ di ko dégg ci ay nopp di ko wattu ci cim xel aku xol waaye wax yàlla nag mu loo xam ne jàng ko tudd ak xaraf yi ci sa làmmiñ danga ci am tuyaaba ju bare baree baree bari tudd araf yi rek araf wax nga tiim alxuraan di ko jàng nii rek di ko di tudd xaraf yi eh, moo xam yaa ngi xam li nga wax moo xam xamoo ko da ci am ab yool ci ngëneelu jàng alxuraan nag kon dañ ci jukki tuuti rek Euh, yonent bi sallallahu alayhi wax na ne jaamu yàlla gi gën ci jaamu yàlla ay xeetam ginnaaw farata yi mooy jàng alquran afdalu ibadati ummati yi tilaawatul quran wax na ne alquran day ramm day sàkku ci yàlla mu jox ko ndigal ci mu ramm ay jaam te yàlla dina koo ca jox ndigal alxuraan day jotli ay xabaar di ko jox yàlla maanaam day seede daal day seede ay jaam ci kanam yàlla te lu mu seede yàlla dëggal ko ku ko teg ci sa kanam di dox ci leer gi mu lay wan danga tàbbi aljanna ku ko woon ginnaaw jiital sa bakkan ak sa bànneex wala nga jiital keneen ak xalaat yi ñeneen di ca dox dem sawara alquranu shafiun mushaffa wa maaxilun musaddaq man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna wa man jacalahu xalfahu saaqahu ila annaar mu wax ne alquran képp koo jàng ku ci jàng aw xaraf képp koo jàng xarafoo ci jàng am ci benn te ñu bindal la ci tuyaaba te tuyaaba ji benn tuyaaba bu nekk dañ la koy fulal fukki yoon waxul ne alif laam mim benn xarafa ko jàppe waaye alif bu ne boo waxee alif laam mim alif gi aw xaraf la laam gi xaraf la miim gi xaraf la daan bu nekk bindal la ci tuyaaba fulal la ko fukki yoon man qaraa xarfan min kitaabillaahi fa lahu bihi xasana wal xasanatu bi ashri amsaaliha euh, laa aqulu alif laam miim xarf walakin alifun xarf wa laamun xarf wa miimun xarf ci ngeen li wax na ci ne ku jàng aw xaraf ci alxuraan ci biir julli taxaw di ko jàng dañ la ci bindal téeméeri yiw fekkee yaa ngi taxaw bi ngay julli bi ngay jàng alxuraan ji ci biir julli yaa ngi taxaw su fekkee yaa ngi toog dañ la ci bindal juróom fukki yiw boo ko jàngee ci lu dul ak julli nag yaa ngi ci arafa ne danga ci am tuyaaba tuyaaba ju ñu fëral la ko fukki yoon ka koy déglu it xarafum ca dégg ñu bindal ko ci benn tuyaaba kon yi xadis yëpp dafa ñëw di wax ci ngëneelul jàng alquranul karim sëriñ bu mag bi radiallahu anhu cheikhul xadim bind lu bare bare bare bari di wax ci li jàng alquran am na ay xasida yi boppam yu mu jagle ay xasida yoo xam ne la ko tax a jóg mooy wax rek ci ngëneeli alquran ci biir ay xasida yeneen dugal na ca wax na da koy taalib yàgg na dugg ci biir alquran di ca wax di ca waxaale itam ay ngëneel ci ngëneeli jàng ko ci biir ngëneeli jàng alquran wax na ci ne qiraatul quraani amnun min lain wa min shaqaawatin wa min makril muin nee na jàng alquran day musal nit ci seytaane boo di jàng alquran yàlla dalay musal day aar ba seytaane la jege dalay musal ci te xeedi bokk ci ñuy jëm safara ëllëg dalay musal ci pexem yàlla pexem yàlla mooy wëlbati gi muy wëlbati mbirum jaam di ko jëme jële ci melo wu ñu rafetlu jëme ko ci beneen melo wuy safaan ba te loolu ab jaam ay tooñ boppam ba tax suñu boroom fexeel ko maanaam soppi mbiram bu nekkoon ci ay xéewal mu yóbbu ko ci ay coono bu nekkoon ci jub mu bu tarxiisee am na nu muy demee mu yóbbu mu def lu ko texee dil ak yoo demee noonu nga xam ne ko nit ki warut a wóolu fu mën di toll ci baax ak ku jub ak ku góorgóorlu warut a tax mu wóolu ne eh, nii lay mel ba faaw fële lay mujj ëllëg jàng alxuraan day musal nit ki ci pexe moomu maanaam sàppi googu yàlla sàpp mbirum jaamam wax na it na inna tilaawatal kitaabi mulku wa huwa liman yabghi najaata fulku ne jàng alxuraan mën naa may nit lu gën nguur nguurug àdduna ñi doon buur ci àdduna li ñuy am ci teraanga ak ki wàcc waaye ki xéewal jàpp ci alxuraan di ko jàng boole ca la ca war mën naa yóbbu nit ci daraja yu ëpp doole darajay buur te ne ku bëgg a mucc alxuraan gaal la goog ku dugg ci biiram mucc ci weneen ba it mi ko daaneele wa sitruhu ma in ilayhi hatku sutura sa alxuraan kiiraayam kenn du ko xotti wax na ne karamu munzil kitaabi abada yaquuduhu liman bihi ta'abbada yàlla mi wax ci alxuraan képp ku sax ci jàng téeréen bi ngir jaamu ko ah, dalay jox teraangam joodul tàggool Euh, wax na ni li qaari il quran xifdul baaqi wa ismatul baaqi ma itlaq nee na ku jàng kuy jàng alxuraan yàlla dalay wattu di la aar dangay ngay mucc te mën ngaa dem ba yàlla ba yàlla la mbaa yàlla la nga génn ci mboolem tënki yi gàllankoor nit ci def lu baax akub texee di wax na lu baree bari kon ci jàng alxuraanul karim moo tax ci bunt bii muy jàngalee lu aju ci alxuraan ci Masaalikul Jinaan muy faslun fi tilaawati wa maa yata'allaqu bihaa ñu ngi ko ubbee ci ci biir li ma doon wax muy wax ngëneeli jàng alxuraan mu ne ammaa fawaaidul qiraati faqad raghaba fiha qawlu ba'di man naqad fa man al qurba min mawlaahu falyaqra al qur'aana laa yansaahu qultu fa man yurid ida rahmani fal yusbitan tadabbur alqurani nee na njëriñ nekk ci jàng bari na lool lool am na waaju baax ji ci wax loo xam ji ci wax wax joo xam ne ku ko dégg war naa yokk sa xemmamteef ak sa bëgg ci jàng alquran kooku dafa waxoon ne yaa man yuridu alqurba min fa fal yaqra alqurana laa yansaahu sëriñ bi iqtibaas ci bayt wa wax ne fa man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra al quraana laa yansaahu ku bëgg a jege sa boroom saxal ci di jàng al quraan sëriñ bi nee na ma teg ca ne bul yam ci sax ci alxuraan di ko jàng waaye nang boole di ko settantal di jéem a xam li alquran di wax di dégg maanaa ya euh, loolu boo ko defee dangay ngay doo doo doo yam ci jege sa boroom te jege sa borom lu màgg la lu la waaye dangay am ngërëmam dangay am ngërëmam kon loolu wax na ko ci ngeneelul jàng alxuraan ci bunt bii ñuy bëgg dugg di ko nafar ci njaalbeenu bind bi day soññee bu baax ci jàng alquranul karim te di ko settantal li ci nekk ci ay pas-pas ci luñ lay gëmloo ci ay xabaar lu mu lay wax ci yàlla mbaa ci yonent yi mbaa ci téere mbaa ci yawmal qiyaam mbaa ci lu dikkagul lépp lu mu la ci wax nga gëm ko loo ci jàng rek dégg mu wax la ko nga xam li wax yàlla nga gëm nga gëm ko fas ko ci sab xol lépp lu ci nekk ci ay ndigal nga jëfe ko sa kem kàttan lu ci nekk ay tere nga bàyyi ko lu ci nekk ci ay atte nga tënk ci sa bopp tënk ci sa dund lu ci nekk ci ay waar nga waaru ca dolli koo ca ak ragal yàlla lépp lu ci nekk ci ay misaal yu muy joxe yuy yokk yuy yuy joxe yu yee nit ci doxinu àdduna ak mbirum nit nga settantal ko dolli koo ca ak am xel dolli koo ca ak ak ak ak jariño boo koy jàng nga jàpp ne yow la yàllay waxal wax ju wax ju ne ci yow la jëm bu dee lu ñu lay digal bu dee lu ñuy digle yow la ko digal bu dee lu ñuy tere yow la ko tere bu dee ak waar yow lay waar bu dee ab àtte yow ci yaw la ko jëmale bu dee pëkku nga ragal moytu la ñuy tëkkoo bu dee lu ñuy dige nga góorgóorlu jàpp ne lii yow lañ ko dig boo jaaree ci yoon way tax nga jot ca euh, melo woo ci jàng dégg yàlla tagg ca aw nit nga góorgóorlu ba meloo nekk ci yow melo yooyu ca gis yàlla di ca ŋàññi aw nit nga góorgóorlu ba melo yooyee nga moytu ko euh, nga jàpp ne alquran mooy mooy xam-xam yépp xam-xam yi ñëw ci àdduna yi ne ci téere yi yépp ci alquran alquran ay cosaanam ci alquran la jóge kon lépp bépp téere boo rek bu am njariñ buy jëm buy jëm buy jëmaleen di ko dolli ci alquran la téere boobee cosaanoo cosaanu téere ba matière ba ci alquran lañ ko jëlee bu ko defee yow nag nga jàpp ne kon alxuraan jii ngay jàng war nga cee mën a dolli doomu aadama yi ay xam-xam yu bees nga xam-xam yu bees yi ni ci tey ñu ko jàng yépp ay boroomi xam-xam a ko jukkee ci biir alxuraan ñoo jàng xam settantal ko génnee ci ay xam-xam bind ko ci téere mu ne yowet booy jàng alxuraan amal yi ju tol noonu fexe ba góorgóorlu ci di settantal ak xalaat ba boo mënee génne xam-xam bu yees boo xam ne xeli doomu aadama àggagu ca woon tam ne ci alxuraan nga ne ko ci roy ci gaa yu baax yu njëkkee ak kilifa yi yu tedd ya nga xam ne ñoo xàll ngir yi mboolam jullit mi jaar fi mu toll nii kon nee na mu ngi soññee jullit yépp rawatina taalibe yi ko topp ci ñu jàng alxuraan te di ko defee nii mu wax nag ne nañ moytoo ñàkk a jàng alxuraan wan ginnaaw alxuraan nañ ko moytu nañuy sax ci di ko jàng te buñ ko bàyyi mukk buñ bàyyi mukk jàng alxuraan buñ ko gàddaay mukk euh, lu mu néew néew rek nit ki na am lu mu saxal bis bu set mu jàng ci alxuraan kem kàttanam donte ñetti xisib nga jàng ci alxuraan bis bu set it ko saxal di ko jàng mu ne am na ñaari kuréel ñaari xeeti mbooloo yoo xam ne ñoom dañoo wan ginnaaw alquran bul bokk ca ñoom benn kuréel mooy mbooloo muy sàkk am na ci ñi sàkku xam-xam ñi jàng xam-xam am na ci ñooñ bu ñu xasee nekk ci njàngum xam-xam dootuñ jàngati alquran dañ koy yoon ginnaaw dañ koy teg fële dootuñ ko jàngati ndax téere xam-xam ya ñu nekk di ca napp na bi lañ jàpp ne moo leen gën a yitteel ba dootuñ jàngati alquran mu ne yow bu bokk ci ñooña boo jàng ak xam-xam ak loo xat-xat-xat dee ko boole jàng alquran ñi nga xam dañoo sóobu ci ngirum tasawuf ñi woote ak sufiyankewu topp ay kilifay diine yi yombati ci yoonu yàlla am ci ñu dama dem ba jàpp ne la ñuy def moo gën a màgg jàng alquran ba tax ñu ne ñoom bu ñu jàng alxuraan leneen ci leneen la ñuy nekk ci yeneen yëngutu la def ndax danañ ca amee lu gën li ñuy am ci alxuraan danañ ca doxe doxin wu gën a gaaw wi waroon a mën a ame ci alxuraan nee na mbooloo yooyu wax yooyee loola bul ca bokk te bul def ñoom ndax loola ñuy wax dara du ca dëgg lépp ay nar la noonu la ko waxe ak i neen seytaane moo leen jaar ci bunt boobu rekk ngir gàllankoor leen waaye lañ wax dara wérute lu gën a màgg jàng alxuraan amul ci li ma wax lépp nag ci la waxe ne adin tilaawatan li zal kitaabi walaw salaasatan min al ahzaabi fi kulli yawmin duna hijranin kama talabatul ilmi bihi dawu intima wa ba'du man tasawwafu wa za'amu bi anna ma hum fihi minhu a'zamu wa dhalika ad-dalilu zuurun wa kadhib qad gharrahum iblisu fihi faqtarib wax ne laa tahjuranhu watluhu muabbida wastanbitan ma chita minhu abada min alulumi misla saalihi salaf is kulluhum min lujji bahrihi garab liannahum maddatu kulli ilmi fi hadihi dunya bi qawli alqarni fa kullu wasfin fiihi madhu rabbina ibadahu tasif bihi wastahjina kulla sifaatin qad naha al ibaada anha wa jaanibha taxuz rashada kon ci tàmbali bunt bi da ca soññee ci sax ci jàng alquran te di ko settantal te di ci defaroo ak yokkoo te bañ koo gannaaw wan ginnaaw bañ koo gàddaay bañ koo bàyyi bañ a jàpp ne am na lu ko gën a màgg ci jëfi yiw gi ginnaaw joxe farata ci biir bunt bi wax na ci <coughs> ginnaaw bu soññee ci jàng alxuraan teggiini jàng alxuraan ku jàng alxuraan yan teggiin la war a am <coughs> euh, sukkandikoo ko ci waxi Cheikh Mouhamadou Yadaali ad-Daymaani radiallahu anhu mi nga xam ne ci téere mi sukkandiku li li ëpp ci Masaalikul Jinaan muy xaatimatu tasawuf mu ne bu aadaabuha mu ne jàng tagg yi jàng alxuraan ci ni ko naan yi indee li ci njëkk mooy boo jàng alxuraan na nga ànd akub laab na nga ànd akub laab bu la jàpp waree na nga jàpp bu la sangu farata waree na nga sangu farata kon na nga am laabu toj na nga ànd ak laabug sobe maanaam na nga set wicc ci sobe na nga mucc ci sobe ci sa yére yi nga sol ak barab bi ngay jànge bi ngay toog ak sa sa sa sa sa yaram aadaabuha inda alfata daymaani tatahurul badani wal makaani na nga saxit ci di setantal maanaa yi ngay jàng aay yi ngay jàng dee ko settantal di jéem a dégg maanaa yi te ànd ak dal te sa jëmm bañ a nekk di yëngatu ak baj-baj yi ndax wax yàlla ngay jàng kon àndal ak dal te na nga soccu ba sa gémmiñ sa wécc nga bañ a am xet gu naqari gu génn ci sa gémmiñ ndax ku wax wax yàlla di tudd yàlla sa gémmiñ dafa war a sell set ndax malaaka yi dañ lay déglu jinne yi gëm yàlla dina déglu nga toog mbooloo mu lay déglu euh, loolu lépp tax na nga war a nekk ku soccu ba sa gémmiñ set wicc misluhuma tadabul maana maa sakinatin maa stiyaakin shuria euh, nee na bokk ci teggin yi kuy jàng alxuraan nga jublu xibla nga toog jublu xibla euh, te ànd akub ragal yàlla sëgg sëgal sa bopp maanaam jëmale say bët ci li nga tiim di ko jàng jëmale ko suuf ci sa barabu sujjóot te ànd akub wegu te bañ a nooyal sa baat mel ni kuy neexantal di nosal ak a defi xeetoo yooyu ndax dañoo bëgg ci kuy jàng alquran mu dëgëral baatam jàng jàng yi nu góor waaye bu mu nooyal baatam mel ni jigéen ak di randamtal mooy di eh, diri baat di xëcc ay araf lu ëpp ko war xëcc ak bi gàttal yi mu waroon a xëcc mel ni kuy way nee li lépp bokkul ci teggi ni kuy jàng alquran moo tax mu ne wa kawnuhu mustaqbilan maa xushoo mutriqa rasin bi waqaarin laa xudoo is yundabu tafxiimu ay an yaqraa ala qiraati rijaali jahra wala yakun xaadica sawtin ka nisa wa bi laxnin faqisa ci biir teggin jàng alxuraan tam nee na ku jàng alxuraan da ko war a jàng ngir jëmm yàlla rek jàng alxuraan ngir yàlla ngir am tuyaaba ëllëg ak settantal maanaam ngir dolli ci ngëm akum jub akum defaru waaye waru koo def ngir njëstal bëgg ñu mën a ñu dégg baatam bu neex akuk mën jàngam akuk njàmbaareem akuk mokkalam ak yu noonu wala mu di ko def ngir bëgg bëgg caa am alal duñ ko cay jox wa an yurida wajha zil jalaali bihi bila riyan wa naylil maali ci teggin jàng alxuraan tam nee na ki jàng alxuraan war naa am war teggiin xam ne waxi yàlla lay jàng téereb yàlla la yor lu yàlla bind lay jàng kon day mel ni ku toog jàkkaarloog yàlla di wax ak moom ku mel ni ku yàlla jox mbind mu mbind mu toog ci kanam yàlla di jàng mbind moomee yàlla bind mu koy jàng yàlla di ko dégg kon ku mu jàppe boppam ni ku nekk ci taxawaay bu mel noonu wa an yakuna zata addubin maa qurani rabbihi kama qad waqaa uh, mustaxdaran fi fi zihni annahu xadar munaaji al mawla wa yatlu ma satar uh, wal yaku qaari'an kaman yaraahu subhanahu laysa lana siwaahu is kullu man lam yarahu wala boog li anna man lam yarahu bil ayni li anna man lam yarahu bil ayni fa innahu yanzuru kon lii lépp bokk na ci tegg yi ni jàng yi nga xam ne eh, indi na ko ci téere bi nga xam ni ko seetee war naa mat fukki teggiin mu ci boolee waaw fukki teggiin daal ak benn war na koo lim war naa dugg na ci biir bay yi nga xam ne jàng nañ ko kon yooyu yëpp kii jàng alxuraan war na cee bàyyi bàyyi xel kon teggin jàng alxuraan ab tomb la ci biir bind bi sëñ bi indi ko ci Masaalikul Jinaan am na beneen tomb bu ci indi mooy jàng alxuraan ci boppam bu ñu ko dee def nan moo ci gën ndax boo ko dee jàng Euh, nga di ko jàng-njàng mu teey te leer te neex moo gën su boobaa la ngay jàng du bari euh, nga boole ko di ko settantal wala la gën mooy ngay rotatati jàng-njàng mu bar te gaaw ndax nga mën a jàng lu baree baree bari loolu lan moo ci gën ñaar yooyu ñaari njàngin yooyu tartiil ak alxadar alxadar wala wala al isra fil qiraa ñaar yooyu lan moo ci gën njàng mu tey te diit te leer ak njàng mu bar te gaaw lan moo ci gën borom xam-xam wut ci lan moo ci gën am na ñu ne njàng mu tey ne te diit te leer moo gën am ñu ne njàng mu gaaw mooy gën ku nekk ci ñoom langa wax am na foo ko teg foo ko sukkandikoo ci alquran mu ne waxtalafu hal afdalu tartiilu aw aksuhu kullun lahu dalilu wa rattilil quran tartiilan jala dalila tartiilin liman xad faddala wal amru bi zikri kathiri l aya aksi aksihi fi riwaaya mu ne borom xam-xam bi wuti nañ ci jàng xam ne moo ci gën njàng mu teey te leer te moo gën wala mu gaaw te bari mu ne kenn ku nekk am na foo teg sa loxo ñu wax ne njàng mu diib mu teey te neex moo gën te wér ñu ngi teg sa ci li yàlla wax ne warattilil qur'ana tartiila ci suratul muzammil boo dee jàng alxuraan na nga ko teeylu jàng ko njàng mu diib te teey te leer te wér te neex waaw soo koy jàng soo mënee jooy nga jooy soo ko mënul nga jooy jooylu ndax teew teewlu ne wax yàlla ngay jàng lu mag ngay jàng euh, kon ñi wax ne diib gee foofu lañ ko teg ñu wax ne baral gi gën ñoom dañu ne yàlla moo wax ne yaa ayuha alladina amanu zkurullaha zikran kasira yéen ñi gëm yàlla dee leen tudd yàlla lu bare baree baree bari ñu ne kon boo ko dee baral ci la bari gi di mën a ame kon nee na ku ci nekk ci ñoom am nga teg tegtal bu sukkandiku waaye nag am na loo xam ne ñoo ci dëppoo daje ci ñoom ñëpp nga xam ne yow loo ci mën di defit it xel ci loolu moom na ci bokk laakin imaadul amri wal qasdul ajal huma tadabburun tafahumun ajal wattafaqu turan ala kawnihima sunnata xayril xalqi laa tamsahuma mu ne waaye nag boo dee baral ak booy diibal lépp ci yam boo dee jàng alxuraan daal del setantal maanaa yi di jéem a xam li yàllay wax ci alxuraan nga di ko jéem a xam loolu man loo mën di def na ko ci boole bu di njàng mi bare na ànd ak settantal bu teeyee na ànd ak settantal ndax ñoom ñëpp bokk nañ juboo ci ne settantal googu sunna la sunna la sunna la maanaam mooy muy yonent bi daan santaane te daa ko def dikk ni ci xadiisu an ummil muminina xafsata radiallahu anha qaalat kaan annabiyu sallallahu alayhi wa sallama yaqra'u suurata fa yurattiluha xatta takuna atwala min atwala minha soxna aïchatu soxna xafsa soxna xafsatu doomi Seydina Omar bin Xataab radiyallaahu anhu nekkoon kenn ci waa kër bi sallallaahu alayhi wa nee na yonent bi daana jàpp wenn saaru alxuraan di ko jàng di ko diibal di ko teeylu di ko tajwid di ko diibal di ko diibal di ko diibal ba yàgg ca lool ba saar yi muy jàng sax yàggaay bi dana tax mu mel ni moo gën a gudd yeneen saar yi ko gënoon a guddi ca kaamil ba saar boo xam ne boo koy xool ci kaamil bi ay li mu ay aayam am na beneen saar bu ko ëppi aaya waaye ci ni mu koy teeyaloo ni mu koy diibalee ni mu koy rafetale da cay yàgg ba mën naa am kenn ku jàng saar bu gën a gudd woowu njëkk ko noppi loolu kon euh, day wane ne di jàng jàng mu diib tartiil loolu sunna la te loolu day gën a dëgëral waxi ñu njëkk ñooñu kon loolu kon ki jàng alxuraan daal mu di ko teeylu di ko settal di ko rafetal di ko diibal mbaa mu di ko baral te baral ga bu mu tee njàng ma wér te rafet te leer te lu ci mën doon loo ci mën def na ànd ak settantal kon loolu la wax ci boobu njàngin jàng alxuraan tam mu ne ndax boo ko dee jàng nga tiim nga di ko tiim di xool moo gën walla nga di ko tari moo gën loolu nee na boroom xam-xam wuute nañ ci lan moo ci gën am na ñu ne nga tiim ko di xool a gën am ñu ne euh, nga di ko tari mu ne Euh, mu ne waaw wa faddalu waaw moom sax dafa ne borom xam-xam nee nañu li gën daal mooy di tiim xool di jàng moom moo gën loolu sax du wuute moo gën lañ wax wa faddalu qiraatan bi nazari euh, fi mushafin ala siwaahu fanzuri borom xam-xam nee nañu jàngal xam li ci gën mooy nga tiim ko di xool nga tiim kaamil bi di ko xool loolu moo gën boo nekkul ci julli kon moo gën nga di ko tari euh, daal di loolu euh, fa kullu ma fi mushafin qara'ta li wajhi rabbika axi xafafta xafafta an waay dayka fi umuril qabri fi umuril qabri bi isni zil jalaali doona nukri nee jàng alxuraan di ko xool moo gën ñàkk koo xool ndax bokk na ci nga leen di jàng alxuraan boo ko dee xool saa yoo tiimib alxuraan kaamil di jàng di tiim di xool rek bu fekkoon ne say waajur ya faatu ba nekk ca bàmmeel ña nga leen doon mbugal diir bi yaa ngi teem kaamil bi xool dañ leen war a faral mbugal ma ba ba ngay bàyyi njàng ma te itam alxuraan ku koy tiim di ko jàng di ko xool ci say bët yàlla na bàyyee say bët nga am bët yu neex wa man li qur'aani qara bi nazari mattaahu rabbul wara bil basari muxafifan an weldayhi fil azab wala yakonaani li shirkin fi intisab nee na képp koo xam ne yaa ngi tiim alxuraan di ko jàng di xool suñ borom dana la may gis bu neex te dana la woyofalal mbugal sa ñaari waaw ji ci seen bàmmeel donte sax ay yéefar lañu yonent bi saa sam nee na euh, tiim alxuraan di ko jàng alxuraan nga di ko jàng di ko xool gëne na nga di ko tari bañ koo xool nit jëf farata gëne naafila jëfi farata nit ëpp tuyaaba naafila noonu jàng alxuraan di ko xool gëne Eh, di ko tari bañ koo xool kon loolu wax na ko ci tiim alxuraan di ko xool jàng eh, te nañu xool xool ko rek ubbi kaamil xool rek sax bàyyi loolu ci ak jaamu yàlla bokk doonte jàngoo ci benn aaya xëy suba ba ngoon xooloo ab kaamil ubbiwoo ko xool ko loolu sax wax nañu wax nañu du lu du lu gën waaw wa adamu nasari kulli yawmin fi mushafin kuriha indal qawmi waaw li mu wax ci xool alquran xool ko rek nii ak jaamu yàlla waaw bayit wa déedéet tuadu qurbatan la daa fa nasratu waaxid fi nusxati tuadu qurbatan لدى euh, waaw tiim alxuraan daal xool ko rek tiim ko rek xool noonu rek ak jaamu yàlla euh, kon loolu la wax ci waxaat na it ci alxuraan boo ko dee jàng euh, ndax di ko setantal di dégg di di xam li ngay jàng moo gën wala ngay jàng rek ndax ku ko jàng di ko xam di xam di seetantal dégg maanaa yi euh, moom rek am tuyaaba wala kiy jàng xamul sax du du du du am tuyaaba kooku dana am tuyaaba mu ne nag boroom xam-xam yi ñu bari ci ñoom nee nañu jàng tuuti ci alxuraan te seetante ko dégg woo moo gën nga jàng ci lu baree bari loo xam ne dégguloo ko seetantaloo ko kon mu ngi dugg ci buntu setantal jàng xam di ko satantal wax na kon ci settantal ak dégg li ngay jàng mu ne wa faddalu qillataha bil fahmi min kasratiha bi gayri fahmin istain leen jàng tuuti ci alxuraan lu néew ci alxuraan nga jàng ko te settanta ko dégg maanaa ya moo gën nga jàng lu bari loo xam ne settantaloo ko wa qiila in gayra zi tadabburi laysa lahu ajrun bila sirqate am na ñoo xam sax nee nañu ku jàng xam te doo ko setantal doo xam dara ci maanaa du amub yool waaye waqiila bil aksi am ñu wax safaan beneen déedéet nag alxuraan nag mag màgg na màggaay boo xam ne tudd rek soo ko defee am ci am ci yool boo setantalee boo déggee maanaam ak boo ko déggut waaye nag wuute googu ci ku jàng te dégg xamoo li ngay wax ndax danga ci am tuyaaba doo ko ci am wuute ga ma am ci ku koy jàng ku jàng jàngut ngir mokkal bu dee ko koy jàng ngir mokkal nag moom bu bu setantalee dégg ma rek bu setantal lépp day am tuyaaba wa qiila bil aksi walakin al xilaaf fi xayri zi e, taallumin bila xilaaf mu ne am na fukki saxaaba ak ñaar yoo xam ne dëppoo nañ ci ne tiim alxuraan di ko jàng di ko setantal moo gën lu baree baree bari ci xeeti jaamu yàlla yu ñuy def wajtama jabu min sahmi sahbi ala tafdilihi ala kathirin umila wa baaduhum allalahu bilkawni ashgala lillisaani walaynayni wa qalbihi wa yadihi walxijri maa tadaburil maani fadri fukki saxaaba ak ñaar dëppoo nañ ci ne tiim axaram di ko xool di jàng moo gën Euh, lu bare bari ci li ñuy def ci xeeti jëf yu baax ndax kii alxuraan yor alxuraan di koy tiim di jàng daa bari ay tuyaaba yu muy am daa bari ci jëmmam muy bokk ci jaamu yàlla gi ndax làmmiñam yuy jàng ci la bokk bëtam yi xool ci la bokk xelam mi xalaat ak xolam bi tooy ci la bokk loxoom bi téye kaamil ci la bokk poojab bi mu teg kaame bi ci la bokk xelam mi setantal ci la bokk kon néewaanu jaamu yàlla goo xam ne yooyu yëpp day lool di ca ànd di ca bokk te loolu day day ci jàng alquran mu ne euh, sayidna abdullah ibnu abbas radiyallahu anhu nee na toxal nañ ci ay waxam mu wax ne ci jàng waxam di ko setantal ni mu gën a ñàkk koo setantal mu ne julli ñaar rakkaa yu diggu doomu yu yam rek yoo xam ne guddul gàttul ñaar rakka yu yam rek nga julli ko euh, jàng ci alxuraan joo settantal moo gën nga fanaanee naafila guddi gi yépp te la ngay jàng ci alxuraan doo ko settantal wa naqalu an waladil abbaasi alayhim ridwaan rabbi nnaasi tafdil rakaatayn bi iqtisaadi maa tafakkurika bi fuaadi maa qiyaami kulli laylin al fuaad saahin bi xaflatin fa lazim ijtihaad loolu ibnu abbas dafa xam ne rakaataani muqtasidataani xayrun min qiyaami laylatin wal qalbu saa kon loolu waxtu bay jooyu kon wax na ci settantal alxam boo ko dee di ko settantal am solo gi am solo ak yitteel gi yitteel kon lii lépp daal wax na ko ci jàng alxuraan ak i tegginam ak ñi koy defee jàngal xam tam man waxtu moo ci gën ak gan anama ci gën ndax booy jàng alquran nga di ko jàng ci biiru julli moo gën wala nga tiim téere bi toog yoru kaa ngi tiim di jàng lan moo ci gën ne ci julli di jàng ak nekk ci yor téere bi jàng nii lan moo ci gën mu ne wax nañu ne la gën jàngal xam moom li ñu njëkk a wax rek mooy ne jàngal xam amul waxtu foofu xëy na ma ngay ñëw ci waxtu yi moo gën ci jàngal fa waaye lan moo gën ci xool ci ndax jàng ci julli moo gën wala ci lu dul julli afdaluha ma fi qiyaami layli wa jawfihi al axiri faqbal euh, euh, qawli mu nekkoon kon ja nga di ko jàng ci biiru julli moo gën jàng ko ci lu dul ak julli te loolu xadis bi njàngoon ci ginnaaw yonent bi ne ku ko jàng ci biir julli taxaw ñu fay la ci araf wu nekk téeméeri ko jàngee ci biir julli toog ñu fay la fukki boo ko jàngee ci lu dul julli nag arafoo jàng ñu fay la tuyaaba fulal la ko fukki yoon loolu kon day wane ne kon jàng ci biir julli moo gën di ko jàng ci lu dul julli yonent bi sallallahu alayhi wa da ko daa jàng ci biir julli di taxaw guddi gi di naafila ba xaaju guddi gi léeg-léeg guddi gi day taxaw genn wàllu guddi gi yëpp da koy taxaw da koy da koy naafila di taxaw di jàngal alxuraan léeg-léeg sulus bi lay taxaw léeg-léeg lu jege ñaari sulus euh, loolu kon taxaw ci biir julli di jàng alxuraan lu am ngëneel la waxtu yi ñu koy jàngit wax na ci ne jàng alxuraan amul waxtu wu ñu koy tere waxtu yépp rek lañ ko mën a jàngee walaysa tukrahu lada siqaati qiraatun fi ayima awqaati awqaat jàng xam amul wenn waxtu wuñ koy sibe wuñ koy bañee am na ñu naan kenn du ko kenn waru ko jàng ginnaaw takkusaan waaye neen ñooñu seeni wax kenn du ko déglu dañoo wax ne yahood yi ci waxtu lañu jàng seeni téere ñu bëgg jullit bi bañ a dajeek ñoom ci jëw ji jëf waaye nee na loolu lay wu doyadi la kenn dul sukkandikoo ama allazim badiasa manaa minha fa inna nahyahu lam yusmaa allalahu bi kawnihi bi annaha dirasa ahlil yahudi fan bisan qiyaasa kon waxtu yi gën ci jàng waxtu yi jàng alxuraan mooy wax na ko ci ginnaaw tuuti mooy di ko jàng ci biir julli ci waxtu guddi ci biir guddi rawatina waxtu njël afdaluha ma fi qiyaami leyli wa jawfi al axiiri ويوم وهكذا بين العشاء والمغرب وبعد فجر بنصوص النخبي diggante timis ak gee it waxtu wu wu baax la wu am solo la ci jàng alxuraan ginnaaw jullit suba boo soobee jullit suba ba jant yi fenk it diggante boobu it waxtu wu am solo la ci jàng alxuraan bisu alxames bisu àjjuma ak bisu altine itam ci bis yi nga xam ne taamu nañ ci ku jàng alxuraan la bokk wa yawmul isnayni wa yawmu arafa ak bisu arafa wa yawmul isnayni wa yawmu arafa wa jumaatun suma alxamiisu fa arifa kon ci waxtu yi ak bis yi euh, wax na ci loolu kon lii lépp ngi jëm ci wàllu jàng alxuraan waaye bind bi nag yamul ci jàng alxuraan waaye wax na ci bind alxuraan alxuraan ku koy bind noo ko war a bindee ñëw ne ci bind bii ñuy jàng wax na ne bind alxuraan ku koy def sopp nañu nga rafetal mbind ma nga bind ko mbind mu rafet bind ko mbind mu leer bind ko mbind mu teqali ko mu jaxasoowut moo xam ne mu leer nañu lay doon ba noppi nga topp ko ba mu wér ba dëppoog kaamil ba kaamil ya Seydina Usmaan bindoon bindiin ya Seydina Usmaan bindoon kaamil ya ne kuy bindati alxuraan na ko bindee mbind wu mel nii te mooy mbind saxaaba ya bokkoon fekke woon jamono yonent bi daan noonu doonoon ay jëriñ daan ko bindee ñu topp ko ba mu dëppoog mbindiin woowee ah, loolu itam ah, bokk ci li ñu santaan si ku jàng alxuraan si ko koy bind Euh, ba noppi boo koy bind it bu ca jaxasee dara lu ca bokk benn baat bu dul alxuraan bu ko def ci biir kaamil bi bu ca commenté bu ca bind bu ca teg yenn wax dugal ko ci biir kaamil bi euh, di ko ci bindaale na nga bind alxuraan ji muy alxuraan kese kese kese kese yoo xam benn baat bu dul alxuraan bu mu bokk ci biir bind mi moo tax mu ne wanadabu taxsina xatil mushafi wa hakaza tabyinuhu euh, nadban يفي وهكذا التصحيح بالتحقيق من غير تخبيط ولا ترقيق loolu wax ju mel nii ñëw na ci téereb imaam an-Nawawi rahima radiyallahu anhu nii mu ko waxee fii rek noonu la ko waxee ko wax na itam ne kuy bind alxuraan tam waroo jël ay kayit ay kayit yu gàtt yu tuuti yu tu yu yu yu doy waar yu solo nga di ko ci bind da nga yu am daraja yu am solo bind ko ca yu mag yu mag yu am daraja nga bind ko ca wa karihu waraqatan saxira yuktabu fiihi mushafun xaqira am na riwaaya yu wax yuktabu fiiha sax ñu ngi ko toxal Ali radiyallaahu anhu mu ne euh, bëggul ñàkk solo kayit bu ñàkk solo wala lu ñëw kayit bu ñàkk solo di ci bind alquran kon ki bind alquran nanga ko bind ci foo am daraja foo am daraja kon loolu wax na ci mbind ni alquran te noonu mu ko waxee nag bind ko ci téere bi yar na ci ay nit tàggat leen ci ba bind alquran doon loo xam ne ci biir taalibe murid yi luñ fonk lool la ñu sonn ci ba man ko lool di ci di di ca di ca di ca di ca def loo xam ne lu yéemu la loo xam ne li ñuy wax aar islamique aaru islam waaneeg waaneeg lislaam waane gi jullit yi am ci def lu rafet lu yéeme njàngal mi seen njàng ci bindinu alxuraan tàggal na ci taalibe ba ci ni ñuy bindee alxuraan ñu am ci taxawaay bu ràññiku boo xam ne fu ñu ko mën a yóbbu ci àdduna ñu yéem leen fa ci mën a mi mbind mu rafet te yéene te bari ay xeeti mbind yu bokkul am ci ay daara ay daara yu bari yoo xam daara joo dem am na seen mbindinu bopp wu ñu leen ràññee nga xam ku xam waa daara ja boo gisee mbind mii mbind mii mbindum waa daara sàngam la def naa lii nii ñu nekk kaamil yi bind ci ay loxo di ko móol ñu di ko jàng buñ ci génne woon yi taalibe bi di bind yi ciy des lu bari kon ni mu ko yaxale nii jëmmale na ko noonu ci euh, biir taal bi njàng mi it ni ma ko waxee noonu la amee ni mu waxee njàng moo xam soññee ci leeral ko noonu la ci yare taalibe yi ba waxtu alxuraan nekk lu ràññiku lool ci maanaam murid yi nekk ñu ràññiku ci waxtu alxuraan mbooloom murid moo jël ña cay mokkal alxuraan nañuy bare ak na mokkal ngay wéree ak na muy rafete boo demoon ci meneen mbooloo jël ca lu toll noonu génn ca ñu toll noonu dana jafe xam boo ñi amul settantal gis nañ loolu am na mayu suñu borom ak jagleel suñu borom bu ñu ko ci defal ci ñi mën a mokkal ci limu ñi mokkal alxuraan ci biir ay taalibeem barik ak barik lu ñu koy jàng nag am na ñoo xam bis bu set ñu jàng alxuraan jëpp ba mu jeex ab kaamil am ñoo xam ne ñetti fan yu ne ñu jàngub kaamil am ñoo xam juróom-ñaari fan yu ne am ñoo xam ne ñeenti fan yu ne am ñoo xam fukki fan ak ñaar yu ne xeeti waqaf yi lu nekk am na ci yoonu murit yoo xam ne yu saxal la bokku li ñëpp xam muy daaray kaamil mooy mbooloo mu ñu sàkk ñuy daje ci benn barab ci waxtu sàngam ci bis bu ne ñetti yoon di wàcce kaamil su jullee fajar suba daje jàng ko bu ñu tisbaar jàng ko bu ñu jàng ko euh, nga xam ne euh, li ñuy jàng ci ay kaamil ci ay bis gi buñ ko doolee ca cosaan la dana mat ñaar fukki kaamil juróom ci ay bis gi ndax bis bu nekk daana jàng ñeenti kaamil guddik àjjuma ñu jàng juróom noonu ñu ko daan defee ci jamono sëriñ bi mën naa am as coppiku tuuti am na ci léegi waaye ñu jàpp ne 1903 1904 1904 ba sëriñ bi nekk Mauritanie ba bisu tey jii takkusaan gii may waxee nii amul benn bis bu amul mbooloo mu sax dàq mu jàngal xam suba ak tisbaar ak takkusaan nga xam doogul benn yoon amul benn bis ci àdduna la ko tàmbalee 1904. ba bi joxee ndigal samp daal kaamil gànnaar ba bisu tey bii nii loolu mës sa dog ci benn barab bu sëñ bi mas a nekk diirub lam nekk Mauritanie la ngay def noona ba mu ñëwee ceyeen ñu sax ca fukki at ak am jaar ñu sax ca ba mu fa jógee ñëw Touba ñam bàyyi njaareem sax ca ñu fekk si tubaa saxalal ko ko fii ci barabam bii mu nekk ci Touba kon lii muy bind noonu mu ko bind noonu la jëmmoo ci biir ab yaram ci liy jeexal nag wax na ci mokkal alxuraan jàng alxuraan mokkal ko ak jàngale ko ak atteem nee na jàng alxuraan ak jàngale ko faratay kifaaya la farata ji yàlla digal jullit yépp nga xam ne mbooloom jullit fu ñu nekk barab bu ne ak jamono ju ne war naa am mbooloo mu mokkal alquran ak mbooloo mu sax di jàngale alquran mbooloo mu doy sëkk moo xam ne lañ cay def dana dana matal yittey lislaam ca mbir mooma dafa njëkk a wax ne mokkal alquran ki gën ci nit ñi mooy ki mokkal alquran ki jàngal xal ba mokkal ko di ko jàngalewaat ngir yàlla wa afdalu nnaasi allazi taallama qurana wa xayran allama loolu xadis la xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mun nag ma koy waxoon wa hifzan al-qur'ana mimma ju'ila fardu kifayatin ala ma nuqila xaysu bihi yaqumu qawmun yaxsulu bihim tawaturun ay tasalsulu in lam yaqum bi darsihi hadha al-adad asima kullu qawmi lazim rashad nee na mokkal alquran man koo tari tàmbalee ko ca fatiha ak baqara ba ba ci qul a'uuzu bi rabbi naas farata la yàlla sant jullit yépp jamono ji nekk ak barab bu nekk war naa am mbooloo mu ko def mbooloo mu doy sëkk mu ko def nga xam ne jamono yi day jokkaloo la ko tàmbalee ci jamono yonte bi ba àddina tukki waxtu wu nekk ak barab bu nekk am mbooloo mu ko mokkal loolu farata ji yàlla teg ci loo su jullit yépp mu am mbooloo mu ci war a féete di ko matal di ko taxawe mbooloo mu doy nag bu ko kenn deful ñëpp am bakkaar loolu mooy fardu kifaaya atte bi ñu wax ñëpp xam nañ ko ci diine mu ne jàngale alxuraan tam noonu la ndax bu fekkee wattu gi lu war la te bu jàngalee amul wattu du mën a am kon jàngale day war maa laa yatimul waajibu illaa bihi wa waajib moo tax mu ne taalimuhu kaza jàngale ko it noonu la faratay kifaaya la war naa am ci jamono ju nekk ak barab bu nekk mbooloo muy jàngale alxuraan ngir nit ñi di ko mokkal mu ne doom bi sax nag jàngalekat alxuraan dañ leen di fay dañ leen di fay ca njàngale ma ñu def ko muy seen métier imaamu daaril hijra muy imaam al imaam malik radiyallahu anhu nee na loolu dagan na wax imaam malik yi imaam malik ñu ko sukkandiku ci ñaari tegtal bu njëkk bi mooy wax bi yonent bi sallallahu wax ne inna ahaqqa ma taxadtum alayhi ajran kitabullah li gën ci li ngeen di def ñu leen di fay moo jàngale alquran loolu tax na imam Malik ne kon di ko jàngale ñu la fay dagan na nee na it buñ ko fekkee ne dañ koo tere ne jàngale ko noo xam kenn du ko fay euh, kon ñëpp mën nañu wuti ay métier kenn du jàngale alquran kenn du ko def muy métier su boobaa ña cay taxaw lim ba mën naa néew ba duñu matal lañ ca soxla te su boobaa kon farata ji day rëq moo tax mu ne taalimuhu kasaba in bi ujra jawazaha imaamu daaril hijra bi qawlihi salla alayhi llaahu bil aali wa sabi man taalaahu fa xayru ma taxastumu alayhi ajran kitaabullahi bi tanbihi wa xawfi an yadia zikrul iili bi adami al iqraai wa tartiili li muy jeexale mooy alquran kaamil alquran téere alquran dañ ko war a màggal dañ ko war a fonk dañ ko war a teral dañ ko war a wormaal ci biir màggal gi ak fonk wormaal gi mu nekkoon dañ koo war a fonk di ko uh, teg fu kawe di ko màggal di ca wis parfum uh, te di ko wormaal lépp lu ak doy dañu bañ ko koo def bañ caa geganu bañ ko geganoo bañ a taal sa tànk di ko ci jëme bañ a fab ay bant du teg ci kaw wala nga téere yi dul teg ci kawam euh, wala nga di ko takk def ko ci ci dara ci def ko ci dara di ko takk nee na yëpp lu ñu war a bàyyi la ndax dafa xaram te alxuraan lu màggal lu ñu war a màggal la wastaxsanu taqbilana lil mushafi kal waladi saxiri nadbun faqtafi nee niñ fon niñ soppee kuy fóon gone gu ndaw noonu lañ soppee kuy fóonu kaamil wa jaaluhu aydan ala kursiyi tasiibuhu kazaka yaa uxay lakin jaalahu wisaadatan munia li annahu muharramun faltattale aw jaala shay fawqahu min kutubi ilmin kaza tasxiruhu bilxushubi wa naxwiha wa maddu dayn lahu kaza taalluqun fajanib kullahu kon lii lépp wax na ko ci war a fonk alxuraan màggal kaamil bi ak warmaal ko ak teral ko ak bañ a def lenn luy niru ak doyadal wala ak sàggane ci moom moo tax moom alxuraan ci boppam kaamil alxuraan daa nangu ci loxoom boo ko saa jox ñaari loxoom la koy nangoo téye ko téye bu dëgër taf ko ci dënnam ubbi ko xool faaw mu def noonu dana ko nangu ba nga xam ne ko jox ñor na ko ñaar loxo la koy nangoo ba nga xam ne ñor na bu ko nangoo danga ko taf ci dëgg dëndam ba nga xam ne bëgg na ko ubbi ko xool ba nga xam ne saf na ko mu yendoo teral mbaa mu fanaane teral nag a ko jox kaamil boobee kon teraanga jooju noonu la bëggee koy nee nag ngir teral alxuraan màggal ko tax na imaam Malik bañ ko laajee ne ko ab kaamilu alxuraan ndax mënees na koo xaaj xaaj yi tolloo ni nga koy jàngee bu fekkee da ngay wàcce alxuraan par juróom-ñaari fan yu ne nga xaaj ko juróom-ñaari xaaj teqale ko xaaj bu ne nga teg ko bis set nga jël benn téere rek jàng boo léegi nga jël benn ba jeex bu fekkee ci juróom benn fan nga koy def nga di ko def noonu ndax loolu dagan na dañ ko walaajee mu mu mu mu metti ko moom rafetluwu ko ndax alxuraan yàlla moo ko dajale ba noppi kon di ko xaajaat di ko defaati xaaj moom rafetluwu ko su ila malikun an tafriqi alqurani wa asbaan fa karihahu karahatan fa qaala laa ara laa uri laa ara an yufarraqa alqur'ana wa qad jamaahu llah waaw wa haula yufarriquunahu laa ara zalik mu ne moom daal rafetlu wut alqur'an ji yàlla wax jigéen yonent bi ne ko dinaa ko dajee ba mu doon téere ma jàngale ko ba nga mën koo jàng ma leer la ko ba nga dégg ko te yàlla def loola ba noppi nga wëlbati ko di ko daggaat ay xaaj nee moom rafetlu wu ko loolu sëriñ bi wax ci mujjug téere bi ci mujjug bind bi ne wa karihu tafriqahu ajzaa an malikin nassa bihi man jaa li qawlihi fi matnihi subhana uh, inna alayna jamaahu qur'ana kon lii lépp ay tomb la yu aju woon ci bind bi Euh, ci buntu bii sëñ bi ci biir saako jaan tuddee ko faslun fi tilaawati maa yata'allaqu biha muy loo ko yaxal ci xalimaam euh, jàngal ko jullit yi ak taalibe yi te ba njàngale ma mu jàngale ca yar ca ba njàngale ma ak yar ba am jeexee ci jëmm duñ mën a gis ci biir mbooloom jullit mi ci biir mbooloom taalibe yi euh, loolu kon day wanewaat ne war nañoo bàyyiwaat xel bu baax a baax alquranul karim ci màggaayam ci di ko jàng ci di ko seetantal ci di ko jëfe ci di ko jikkowoo ci di ci waaru ci di ci dellu ci di ci sukkandiku ci di ci génne ay xam-xam ci di ci def lépp loo xam ne euh, lu ñu téwoo la ndax mooy buum gi ñuy jokkale sunu boroom nga xam ne leeru yàlla ci kaw suuf mooy alquran yonent bi nee na ki yortu alquran ni mu gënee ki ko watut ni yàlla gënee bindeefam ni yàlla gënee bindeef noonu la ki mokkal alquran ki yortu alquran gënee ko watut ñu delluwaat bu baax ci gën a fonkaat alquran gën koo jàppaat gën koo jàngaat rawati ci weeru koor wi nga xam ne ci lañu wàcce woon alquranul karim te yonent bi wax ne alquran ak koor ñoom ñaar yëpp dañuy ràmm nit bu yomal xiyaamee bu al yomal xamee koor gi day ñëw ne yàlla sa jaam bii maa ko daa tee lekk ka naan ci bëccëg bi kon tin ma ci moom alxuraan ne ko yow yàlla sa jaam bii maa ko daa tee nelaw ci guddi gi man la daan jàng kon tin ma ci moom ñoom ñaar yëpp bu ñu bokkee taxaw ci kanam yàlla tin jaam bi nag yàlla tin ko tiin leen ci jaam ba kon koor gaa ngoog alxuraan a ngoog noo ngoog assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Xaafiya Ahmad Ñang ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne eh, indi na ko ci doon ñu fàttali ak di ñu indil benn daras ci masaalikul jinaan ci bunt boo xam ne moom la ñuy tuddee faslun fi tilaawati wa ma yataxallaqu biha ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu waxtaan wi te doon ànd ak sëriñ bi walla ñu jël seen téere nekk ci buntu booba gis nañ ne euh, sëriñ Afia indee na ko noo xam ne fàttali nañu ko fàttalin wu am am solo ci ni ko sëriñ bi indee ci ni mu ko toftalee waaye mu indi ci melokaan yu am solo yoo xam ne tax na dafay mel ne ki nga xam ne moo jàngoon téere bi wala ki nga xam ne jàng ko woon sax di ko dégg xam na bu baax a baax a baax njàngale mi nga xam ne sëriñ bi jàngale na ko ci alxuraan ak njariñ yi mu am jiital benn muxaddima bu am solo ci leeral ñu alxuraan ak i njariñam ak ay ngëneelam gannaaw bi mu ñëw ci ni ko sëriñ bi jàngalee te toftale ko noonu muy njariñu alxuraan ak melokaani nit ki koy jàng nu mu war a mel yan teggin la war a làmboo ci digganteem ak borom waaye bay bi nga xam ne sëriñ bi indi na ko ci rek dafa mel ne tënk na lépp wal yàqu xaari an kaman yaraawu subhaanahu laysa lana siwaahu loolu daanaka tënk na lépp na nga mel ne sunu borom mu ngi jàkkaarloog yow di la gis soo dee jàng alquranul karim indi nga tamit fàttaliñu yan façon njàngeen moo gën ci kuy jàng alquran wala moom lañ gën a taamu loolu tamit ku dugg ci biir waxtaan wi walla nga topp ko euh, da nga gis li ci sëriñ bi indi yan waxtu moo gën kon ku doon laaj euh, waxtu yi gën ci waxtu yi ñuy jàng alxuraan sëriñ bi indi na ko euh, leeral nañu ko bu baax a baax a baax ci waxtu yi yi nga xam ne moo gën ci nit ki nga xam ne dafay bëgg a jàng alxuraan yi nga xam ne tamit. bokk na ci teggin yi kuy jàng alxuraan euh, nga di ko làmboo ci wàllu laab gi ak cet gi ak dal gi ak teewlu ak it ndax di ko jàng ca kaw wala di ko jellentu wala di ko baral yooyu yëpp indi nañu ko leeral ñu ko leeral yi mu am solo waaye mu indi tamit beneen fànn ci sëriñ bi ni mu jàngalee ni ñu war a bindee alxuraan loolu tamit di lu am solo sëriñ bi ni mu jàngulee ni ñu ba ni ñu war a bindee alxuraan li mu wax ne sib nañ ku koy jël di ko bind ci fegg wu tuuti wala nga di ko bind mbind mu sew mu xat kon dafay mel ne sëriñ bi li mu gën a digle ci kuy bind alxuraan mu bind ko mbind mu leer mu rëy mu yaatu moo xam ne ko gis doo am lenn loo ci natt waaye loolu tamit mu indi ci lu am solo ci ne sëriñ bi yëmut ci jàngale ko rek dafa wane ni ñu koy bindee ba noppi soññe ci ba noppi tamit daa ci. Euh, daa ci soññ bu baax a baax ñi koy bind di ko indil daa leen ci soññ ba nga xam ne gis nañ ne ci ay jamonoom mbindum alxuraan yëkkatiku na lool ba fu ne waaye ma fay jógee di bind alxuraan di ko yëpp ndax euh, képp ku ko mas a indil alxuraan su fekkee ne am koom moo tax nga indi ko ni ko naaru gànnaar bu doon waxatee neen man léegi duma ma defati commerce du def dara su ma bëggee am dara rek damay bind alxuraan yóbbu ko sëriñ ba nekk jaareem noonu la demee woon ci ñi mel noonu waaye ñi nga xam ne nag ay taalibe ñoom moo xam la moo xam seen njaboot waxtu wu nekk dañuy bind ay ay kaamil yu rafet ngir indil ko sëriñ ngir bëgg sëriñ bi feeñal seen mbégte ci seen kanam feeñal tamit seenu cofeel noonu gis ngeen ne doomam yu baax yi ak magi taalibe yi yëpp. gis ngeen seen i kaamil ni mel gis ngeen seen mbind yi ni mel gis ngeen tamit ñoom ñu ko wuutu woon moom sëriñ bi li ko dalee ci Cheikh Amadou Moustapha ba ci ñi fi nekk tey képp ku bind alxuraan yëpp leen ni ñu lay fonkeek ni ñu lay terale ak ni ñuy fonke gone koo xam ne dafa mokkal alxuraan wala mu mu bind ko kon loolu sëriñ bi ni mu ko jàngalee noonu la ko jëfee noonu la ko noonu la ko ci ay njabootam tamit wuutoo li wax tamit lu am solo la ne soo dee xool kaamil yu am solo yi ak ñi siiw ci mbind boo leen doo xool ñooñu ñi ci ëpp ci ay njabootam la ñu doon wala ci ay taalibeem loolu moom lu wér la te nekk fi ba léegi saa sooy joxe exemple ci mbind mu leer mu rafet daanaka doo boo génnee njabootu sëriñ bi ñu ngi ciy teg bu bëri noonu tamit la sëriñ bi soññee ci ñu fonk di jàng alquran di ko mokkal loolu tamit xam ngeen moom sëriñ bi bi mu fiy nekk sàkkoon nay daara alxuraan mooy sëriñ Daam Abdourahmane Lo nga xam ne defloo ko lenn lu jàngale alxuraan ñu ko wóotu tamit noonu ba nii may wax ak yow tamit soo xoolee daaray alxuraan yi nga xam ne moo nekk ci ron keppaaruk sëriñ bi ci ay junniy junniy xale di ci di ci mokkal kenn xamul nu mu toll moo xam fii ci Touba kenn mun laa jox li mu daaray alxuraan yi wala nga dem ci biir réew mi ci njabootuk sëriñ bi ni ñuy fonke jàng alxuraan ngir euh, sof ko ci ndigalul sëriñ bi ak ni ko sëriñ bi euh, soññee ba ba ci biir taalibe yi sax gis nga ne am na ñoo xam ne danañu dañuy jël ay neexal yu mag ci waxtu yi di dajale mboolem réew mi ñi daq jàng alxuraan di leen neexal ba nga xam ne tey bu fu ñu demee fu ñu rawante ji njàngum alxuraan ci àddina bi dangay gis ne senegaal dafay bokk ci ñi dàq jàng alxuraan dàq ko mokkal loolu te ñooñu ci ay taalibe sëriñ bi lañ kon loolu dafay mel ne dafay toftalu rek ci barkeb sëriñ bi noonu la amee tamit ci ay biiri taalibe yoo xam ne wut nañ ay neexal yu mag di ko neexale ñi nga xam ne ñoo gën a rafet mbindum alxuraan ba loolu tamit soññaat na dongo yi ak xale yi bu baax ci ñu gën a fonk mokkal alxuraan waaye ñu gën a fonk di ko bind waaye sëriñ ñaafee mujje tamit tomb bu am solo muy ni sëriñ bi soññee ci ñu yóbbu suñuy jaboot ci ñu dem jàngi alxuraan di ko mokkal sëriñ bi da cee soññe lool fonk lu ko lool joxe ci ndigal lool loolu lu lu wér la kulli muridin bi yaluusu fal yudim tilaawatan li xayri sukrin xadrusim loolu bépp taalibe bu wéeru ci man digal naa la ngay jàng alquran te fonk ko noonu tamit la la soññee ci li sëriñ bi doon wax léegi ci barke bi nekk ci doom wala waajur bu jël doomam yóbbu ko ci mu jàng alquran loolu da cee soññe lool euh, fonk ko lool soññe ci wax ci ay bayit yu am solo wax ne képp koo xam ne yóbbu nga sa doom ci daara ñu jël àlliwa teg ko ci ay tànkam wax baasin miim moom waajur wi ko yóbbu ak doom ji ak ki koy jàngal ñoom ñépp sunu borom bind na seenug set ci sawara loolu tamit di lu am solo loo xam ne lu mat a fàttali la ci ñu xam ne tiyaaba ju rëy rëy mi ngi mi ngi ci kon dafa mel ne soo dee xool bind bi nga xam ne sëriñ bi mi ñu ko doon jox daal ci di ñu fàttali njàngale mi nga xam ne sëriñ bi jàngale na ko ci ni ñu war a bàyyee xel alquran ak niñ ko war a fonke indi na ci lu am solo soññ na tamit soññee na tamit ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañuy jël leneen di ko jàng bàyyi alquran karim sëriñ bi dafa wax ne képp koo xam ne ab taalibeem nga na nga jàng alquran doonte ñetti isib la loolu kon lu am solo la dog boo mën a yor li gën te doon ndigalul sëriñ bi mooy nga jiital ci jàng alxuraanul karim kon daal bu ñu doon tënk waxtaan wi e, am na solo am solo goo xam ne ci ci fànn yépp e, ci maanaa moo ko foo ko takk rek weesu na ko ci am solo am na ñoo xam ne ci biir waxtaan wi indi woon nañ fi ay laaj waaye dafa mel ne sëriñ bi daf koo daf koo tontu daf ko tontu ci biir e, waxtaan wi xëy na yeneen laaj yi nga xam ne moo ci des ñu indi ko dañ koy yóbbu ci bisi fataawaay rek kon su ko defee ñu fàttali tamit lu aju ci fataawaay yooyu képp koo xam ne da nga am laaj boo bëgg ñu tontu ko na woote ci numéro yi soo ci joxee say laaj danañ la tontu ñi nga xam ne ñoo koy yor danañ ko bind tontu muy 77 703 63 54 wala 77 678. 57 66 77 765 58 73 wala 77 072 94 76 numéro yooyu képp koo xam ne woote nga ci laaj ab laaj bu soob yàlla incha allah danañ ko saytu euh, tontu laaj bi incha allahu rabbi su ko defee incha allah dañ leen di fàttali tomb bi nga xam ne. moom la war a waxtaanee suba ci waxtu wi moom it euh, mu aju ci bind yi ni ma ko leerale woon démb ci ne dafa am ay mawduxaat am ay bind am tamit yoo xam ne ay ay fatawa la kon suba tamit ñi ngi war a euh, waxtaane assababu dawruhum fi islaahi l ijtimaahiya taxawaayu ndaw yi ci loo xam ne moo yéwénal dundinu xeet wi loolu yaakaar naa waxtaan wu am solo ndax ñi fi ëpp ci ñi fi teew ay ndaw lañ taxawaayu ndaw wi ci li nga xam ne moo yéwénal dundiinu xeet wi dundiinu askan wi sëriñ bu Moussa Assane moo koy def bu subaa bu juróomi waxtu tegee fanweeri minute incha allah kon ñu ngi leen di jox ñu ngi leen di dig daje kon bu suba ak jàmm di sant bu baax ñu ngi doon topp ci GMT ak mboolem site internet yi nga xam ne ñoom lañ lëkkalool ak Lamfal télévision ak rajo yi nga xam ne ñi ngi koy jàllale yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wal tudxil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi